bi moom dafa am depuis 2015 état daf koy def euh, ndax UEMOA sax daf ko euh, ci cadre union bi dafa ne dëkk bu nekk da nga war euh, élaborer lettre de politique sectorielle da nga war am sa stratégie ci secteur bu nekk loolu nag da di ministère des finances moom moo koy coordonné waaye at bu jot boo koy def dafa am noo koy département bu nekk day xool léegi politique bi mooy nekk basam mu xool lan ay jan jéego la ci def boobu nag buñ ci paree mu jël ko jël résultat yi mu def dem jox ko ministère des finances mu boole ko ci revue bu nga xam ne mooy revue synthèse bi muy référence bi kooku at bu jot dañ ko war a def. lii objectif yi nga xam ne que ne président de la république assigné na ko secteur bi mooy que ne na Sénégal am euh, euh, internet euh, am. connexion am euh, nu mu tuddati euh, mobile bi accès bi daal ñëpp ku bëgg nit ku nekk mën ci am accès maanaam boo na accès dafa di am na aspect bu nga xam ne mooy ca dëkk-dëkkaat yi gox bu gën a sori war nañ fa egg waaye na nekk ci mën-mënu nit ñi bu ñu jógee ci renforcement de capacité yooyu euh, ci maanaam prérequis yi ñu ñëw ci problème mu maanaam confiance numérique et que ci loolu confiance xam nga ko wax loolu da ngay wax problème mu cyber euh, sécurité da nga wax problème cryptologie yooyu yëpp defar nañ ko parce que élaborer nañ stratégie bi ñu ngi koy mettre en œuvre li ci dess nak moy axe yi nga xamne kané mom le tek politique bu nek donc bo démé ci dugg ci accès bobu wax nañ la jéego yu bari def nañ ko mais dess na. Sall dafa wax né tey digitalisation dafa jël numérique ne moom lay jël muy accompagner aujourd'hui plan Sénégal émergent donc lépp li ñuy wax ci croissance nous ko wax sans wax numérique kon force mooy que ne dañuy renforcer secteur Bob. ci loolu la ñu renforcer nag dafa laaj ay modification dafa laaj ay réforme 29 réformes réforme am na dañ koy def lool yépp ñi ngi koy def li ci dess moy renforcer ay secteur

ak ni ñu ko defee loolu aussi waxtaan la lan la ñu ci yokk ak lan la ñuy améliorer lan la ñuy bàyyi. buñ ci paree nag daañu mën a génne li nga xam ne mooy recommandation yi jox ko ministère des finances mu boole ko ci.